tiit euh, naqar ndaxte dama lay raconter benn anecdote mm-hmm. sama doom mm-hmm. El Hadj Ibrahima mm-hmm. moom ak Aminata Faye ñoo bokkoon classe du ma tudd turu école pour def publicité moom moo ma ne mais papa mais yaayu Aminata lañ agressé ma ne ko ah bon mu ne ma waaw si moom moo ma informé pour vous dire la vérité ba pare wan ma image bi nga xam ne nii tey image boobu dafay wane fi ñuy yóbboo yaay ji hôpital mais imaginer loolu ci xale bu am 14 ans. Mm-hmm. li muy def ci moom. traumatisme boobu xam nga loolu kon donc foog mu doon loo xam ne dina ko dina ko topp parce que sa yaay ji la jur. Mm-hmm. kon donc ñuy def yenn yi nañ di sóor yenn situation yi. Mm-hmm. donc naxar lu tiit tiit lu tax parce que réew mi dafa toll foo xam ne tey ku ci ragalul rek amoo xel walla dooy xalaat lu bari. li ñu wër day baax tàkk na sax kon Sénégal jege na baax. Mm-hmm. mais li ñu wër moom tàkk na. Mm-hmm. te am na information yoo xam ne peut-être état du ko mën a joxe. Mm-hmm. waaye réew mi am na loo xam ne suñu jogul taxaw ci fondamentaux yi. danañ ci am problème kaaw may mun a ndóor bi am tey dafa doon loo xam ne lu garaaw la. parce que déjà man doublement laa koy interpréter dañu dugg la premier mars te gàm nga gis nga ñuy def souvent ces actes là mm-hmm. dañuy jël ay dates symboliques le premier mars moo ubbi weeru jigéen ñi c'est-à-dire yooyu c'est très important ba pare nga jàpp ne nekkul euh, nekkul agression simple non man mënuma gëm loolu très sincèrement mënuma gëm ne agression simple la d'autant plus que dafa pare émission génn di ñibbi këram xam nga tey nit ki mënoon nga ko ak mais nga c'est-à-dire que symbole datu symbolique bi ma la wax déjà le première mars am na mais déjà avant loolu amoon na ay menaces di menacer ndaw si di wax ci moom kii dañ ko war a faagal kii dañ ko war a def nii dañ ko war a def nii nañ ko tëj tëj gémmiñam donc loolu date bi benn la li ma la doon wax menaces yi aussi ñaareel la mais euh, leneen lu am. Mhm. mooy bu ñu duggee mois de mars. Mhm. jigéen. allez-y allez-y mu nekk chef d'entreprise. Mm-hmm. pour man Maïmouna moo nekk la première femme chef d'entreprise de presse au Sénégal. Mm-hmm. Maïmouna ba léegi nii su ma yeboon ne moo nekk chef d'entreprise Sénégal. Mm-hmm. ci presse ku mel noonu ak li muy incarné yépp nga bëgg ko faagaagal parce que boo xoolee ni ñu wane image yi du rek jël xam nga les bandits. les les les les les c'est ceux qui cas là souvent dañuy dissimuler pour mun a efface mhm. ay traces mhm. parce que le fait que nga jël saagam wala nga sàcc jël ki ñu ne noo agression banale la du banal ça c'est prémédité donc doublement laa la wax benn bi mooy jigéen ñaareel bi mooy mu nekk chef d'entreprise nekk symbole ci réew mhm. donc lu mel noonu su amee tey wax dëgg yàlla dina métti dina tiital nit ñi aussi et je pense que tiitaane ga googu moo ñu war a animer ba tax ñu ñëpp ñu war a jóg taxaw debout pour fair face. Mm-hmm. faire face au monstre nag mooy monstre bi nga xam ne moo war a déstabiliser Sénégal.